mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel euh, dal leen ak jàmm ci grand prix bu euh, Sénico di concours alquran bi nga xam ni at mu jot dana am te ren jii di sixième édition édition 2021 ñu nekk nag ci sunu juróomeelu guddi di leen ci ndokkeel bu baax a baax di ànd ak yéen mbégte mi nga xam ni yéen a ngi koy am ak seeni njaboot foofu ngeen toog ci seen i kër di dund alxuraanul karim ginnaaw bëccëgu koor ginnaaw naafile yi nga xam ne def nañ ko ba yeggal jàkkaarloo xale yu jàng alxuraan loolu ñu ngi leen ci ndokkeel bu baax a baax euh, di fas yéene ñëwaat rek indiwaat juróomi candidat ni ñu koy defee bis bu nekk kii njëkk ci ñoom euh, tey jii ta nga xam ni tànn gi moo ko génne moo di euh, soxna Ndey Touré soxna Ndey Touré jóge ko région bu Ziguinchor kii war a topp ci moom moo di Mouhamad Dia Mouhamad Dia mi ngi jóge ko région de Saint-Louis ki nga xam ni mooy topp ci moom di ñetteelu candidat sunu guddik tey moo di Ndeye bu Ngom mi ngi jóge ko région bu Diourbel ñeenteelu candidat sunu guddik tey mi ngi tudd Amadou Sow Amadou Sow mi ngi jóge ko région bu Thiès juróomeelu candidat te moo nuy tëjal sunu guddik tey ji incha allah moo di soxna Maam Jaara Fall jóge ko région bu Kaolack ñu di leen ñaanal ñoom ñëpp comme niñ koy ñaanale seen morom yëpp yàlla na yàlla defal ndam mbokk yi kii njëkk a jàng kon sunu guddik tey moo di soxna Ndey Touré jóge ko région bu Ziguinchor moom la ñuy teewlu. bismillahi rahmani rahim Yeah. يبطل بعضها ثم أرسلنا رسلا والذين هم والذين هم بربهم لا يشركون والذين هم بربهم لا يشركون حسبك حسبك حسبك ñi ngi koy ñaanal mook ay moromam yépp yal na yàlla defal ko ndam ñu jàll ci suñu ñaareelu candidat ñaareelu candidat bi mbokk yi mi ngi ñuy jóge ko région bu Saint-Louis mi Mohamed Ja, Mouhamad Dia kon région de Saint-Louis mom la ñuy Ya yaa Yaxya xudil kitaaba bi quwwa. Acuudu billaahi يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي وأساقط عليك رطبا جليا حسبك وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة ثم هو يوم القيامة من المؤمنين ضالين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هذا فغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك تبرأنا فعسى فعسى ndokkeel ko bu baax a baax euh, Mouhamad ja région de Saint-Louis moom itam euh, jàng na ba yeggal euh, kon duñ def rek lu dul jàll ci suñu ñetteelu candidat ci suñu juróomeelu guddik concours bi candidat boobu mi ngi tudd ndey Ndeye bu Ngom mi ngi jóge ko région de Diourbel moom la ñuy teewlu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 ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم ¡Wala! وأن فانبجست منه اثنتا عشرة عين ñu ndokkeel ko bu baax a baax ñaanal ko ndam moom itam niñ ko ñaanale ay moromam moom soxna Ndey bu Ngom euh, moo nekkoon ñetteelu euh, candidat euh, jàng na ba yeggal ñu jàll kon ci sunu ñeenteelu candidat sunu ñeenteelu candidat mbokk yi mi ngi ñu jóge ko région de Thiès mi ngi tudd Amadou saw kon Amadou Sow région de Thiès moom la ñuy teewlu. Oh. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل آمنا بالله وما أنزل علينا على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد لا نفرق وفي الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول وشهدوا أن الرسول حق والمنام فلا وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا نعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب وَلَقُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ, وآخر سَيِّئًا عَسَى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملا لكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبون وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم حسبك ñi ngi koy ndokkeel moom itam bu baax a baax Amadou Sow jóge ko région de Thiès moom itam jàng na ba yeggal ñi ngi koy ñaanal ndam niñ ko ñaanalee ay moroomam ñu jàll ci suñu candidat bu mujj bi ci suñu juróomeelu guddi tey jii soxna si mi ngi tudd soxna maam jaara faal soxna maam jaara faal région de Kaolack moom la ñuy إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله عبدا مسلما وما كان من المشركين sant ko bu baax a baax ndokkeel ko soxna maam Fall euh, région de Kaolack jàng na ba yeggal moom euh, comme ni ko ay moromam defee waaye mbokk yi bu ngeen ko seetloo rek gis ngeen euh, saa yuñ ci tuddee ab xale rek jaar na ci machine bi bës ab bouton bouton boobu mu bës nag ay laaj mooy génne fële ca jury ba moom du ko gis day ñëw toog ñu laaj ko ko mu tontu ñoom ñëpp tontu nañu ñi ngi leen di ñaanal ndam niñ ko ñaanale seeni morom ñu sant gërëm nag jury bi nga xam ni ñoom doon saytu liggéey bi kon mbokk yi lii moo nekkoon suñu pàccu tey di juróomeel bi duñ def rek lu dul jox leen eh, dig daje suba ñu àndaat ko ak eh, Sénico ak Grand Prix bi dox daje ëllëg incha allah ak yeneen juróomi candidat wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Oh.